jërëjëf dañoo ñëwoon ndax eh, ñëw ci ndigalu Serigne Abbas mi nga xam ne moo di xalifatu Cheikh Ibrahim borom Daaru Muxti muy ñëwin woo xam ne nii bu dëppoo ak yoon wi la loolu mooy ndigal li nga xam ne moom la Serigne bi yëkkati mooy mun tax comme ci liggéeyal Serigne Touba xam nga dañuy wax université bi waaye liggéey yi li muy liggéeyal Serigne Touba lépp ngi ci biir université bi daa gën a ne ci kanam rek waaye liggéeyal Serigne Touba ci lay xëy ci lay gont loolu nag moo tax euh, bi nga xamee ne yëkkati na kàddu ginaaw bi mu toogee si yéene liggéeyal sëriñ bi képp koo xam ne kii euh, sëriñ Tuubaa mooy sa yaakaar ak ku mën a doon sa bunt war ngaa jóg yëngutu fekk ko ci liggéey boobu loolu moo tax sëriñ Abbas dajale njabootu borom Daaru Muxti gépp ñu taxaw ànd ak moom ngir ñëw ànd ci liggéey bi barkeelu bi nga xam ne nag moom la ñu doon dajale euh, boobu ba léegi moom lañ doon indi siyaare ko teg ko ci loxoom mu mel ne Euh, baykat boo xam ne dafa dafa dafa bay ba ba far màngu léegi dañ fiy jógee nag dem ruujiwaat fas yéene liggéey bu ñu jógee fii dañuy daal tàmbaliwaat nga xam ne noonu rek noonu rek lay bindoo euh, nuy sant yàlla bu baax na ci bi nu yàlla mayee nu bokk ci Serigne Touba waaye suñu buntu di borom Daaru Muxti te ki ko fi nekkal di Serigne Abbas doon koo xam ne kii ni ko ay magam euh, daan defe noonu la ko defee mooy dafay ànd ak mboolem njabootu borom Daaru Muxti ngir lépp loo xam ne ñi ngi koy def ñu ànd ko ak ñi war a àndal ñëpp loolu day tax sa xel gën a dal te itam day tax itam li nga yóotu itam nga xam fan ngay jaar ba àgg ji moo tax mu boole ñu ak Serigne Mame Thierno moom Serigne Cheikh Awa Balla mi nga xam ne eh, dafa waxoon ci kanam ñëpp ne leen bu Serigne Moustapha Absa fu mu war a teew te teew fa mooy jëwriñ ji nga xam ne eh, defuma ko ko moom Serigne Moustapha Absa eh, yàlla moo koo def ci ci nekk baayam ba léegi fu mu fu war a dem nag te teewu fa sëñ maam Thierno sëñ Cheikh Awa moo fay teew moo tax mu boole ñu ak moom ak sëñ Cheikh Assoupé mi nga xam ne moom la denk euh, village bi biir Daaru Muxti ak bokk ñu àndal yëpp sëñ Xaadim docteur mboolem kër yi euh, njabootu borom daaru ñëpp seen njaboot woon ci biir mbooloo mi ngeen gis noonu loolu la sëriñ Abbas bëgg muy dund ñu xam ne euh, yoonu sëriñ Tuubaa noonu rek la li war a jiitu day jiitu li ci war a topp topp ji te ku safaane loolu bi ci gën a yomb a gis te muy misaal mu yomb moo di ne euh, oto yi bu ñu jaar ci kaw yoon ku ci jàdd yoon wi nga war a jaar rek euh, boo tuut yaa indi yaa indi accident bi moo tax lépp li war a jiit lu nekk la jiitu la ca war a topp topp ci noonu lañ ko noonu lañ ko lañ ko war di doxale beneen ba ca des nga xam ne mooy li ëmb lépp nag mooy euh, li nu booleeg sëriñ bi muy buum ji nga xam ne moo nu yeew suñu digg ak sëriñ bi muy sëriñ Touba mooy ndigal baatu ndigal boobu ak jëfe ko nga xam ne duñu yem ci wax ko rek dañ ko war di jëfe waxtu boo xamee ne nag ñàkk nañ koo jëfe moom la muy jur Euh, walxiyaasu billah ndax jëfe gi mooy li nga xam ne moo lay may li nga bëgg tey ak ëllëg ñàkk gaa jëfe itam mooy li nga xam ne moo koy xañee te loolu moom Serigne Touba bind na ko fu nekk wax na ko fu nekk kon nag loolu mooy tax euh, kenn ku ne war na lu mel nii bu xewee nga ubbiwaat sa xel ubbi sa bët xool ba xam ndax yow lii ab seetu la ndax yow euh, lim bi ñu fi indi jërul ñu di ko tudd ki ko indi xam na ko yàlla xam na ko te yelloo na lu ëpp loolu kon léegi kenn ku ci ne la nga fa def xam nga ndax yow Euh, def nga ca dara wala defoo ci dara wala la nga ca def euh, da nga koo xeeboon waaye sunu borom moom gis na ko ndax sunu borom kii def ci moom doo def lu ëpp doo def lu yées am na euh, benn taalibe Serigne Touba bu baax boo xam ne su ma ko tuddoon yéen yëpp ngeen xam ko jëfam ci biir dëkk bi ju rëy rëy la dafa waxoon ne Serigne Touba nit koo xam ne jëmm joo xam ne soo koy soo koy soo koy soo koy liggéeyal la nga séentu ci moom mooy aljanna ëllëg doo ko defal ab néeg di ko yéem koo yaakaar ci moom aljanna doo ko defal ab néeg di ko yéem muy baat boo xam ne bi bu rëy la boo xam ne ñu bari mën nañ caa jël di ko jariñoo te loolu mooy li nga xam ne taalibe bu nekk loolu la war a jam kon dañoo ñëwoon ngir feddali si ak taalibe ci turu a Abbas mboolem ko aju ci borom Daaru Muxti ñu teg ko ci loxo mu teg ko ci loxo Serigne Serigne Mountakha ñu wëlbati ko di déglu ndigal fii ñu nekk nii tey tàggoog moom léegi ak li mu nu wax te ñi fi toog ñëpp ñu bari jàpp nañ ni mosuñu déggum wax kàdd yu mel noonu yaakaar naa ne loolu kum doy dara du la waaye nag ñu ñaan yàlla sunu borom euh, mu may noonu fekkewaat ko te bu ñu dellu siwaatee mu raw ni nga xam ne ni dëkkee ñi muy ñëpp sant ñëpp di gërëm